wan ne leen tellement le mal est probant gendarme mooy ñëw commandant am këram fu mu def ay xar ñu sàcc ko. Oh. c'est <laughs> lu mu ne moom moo caaxaan. te te te ci moom la ñuy sàcc. moom la ñuy sàcc <laughs> te effectivement te du kii rek euh, du du du lu rek Jurbel fii nii. dégg nañu procureur lañ sàcc ay xaram ba mujj dafa mujj a délogé dem toog feneen. ba uti feneen beneen logement. <laughs> pour war na ne le mal li ñuy wax nii le mal est pour affaire bi du du du benn du benn localité la dafa dafa dafa dafa yaatu.